borom tor bi yàgg. borom nit ñi ci loolu la nekk di ko yaakaar kañ la yegg si te loolu dafa bokk ci li épargne loolu nit ñi dafa bokk ci li dalal réew mi dafa bokk aussi à partir de yàlla baax na yàggatul. Hmm. moom lu mu foog nekkul de jàmbaar jàmbaar lu ci wax di wax wax ci bëri waaye jàpp ne nga ko bopp siri nga ko waxoon naa naa ko waxat yaakaar naa la arrière un pas combat bu neex la nekk combat bi di nga bëri di nga xeex man nag mu ne ko wax jëm bu toll nii mu toll nii tey ñu la ciy gërëm mu la ciy sant ñu lay lay ñaanal jëm ay jëlal